Euh, votre départ de Petrosen mm. euh, nga xam ne da nga wax ne c'est pour des convenances personnelles mm-hmm. euh, dañoo gis ne da nga disparaître si espace public bi lan moo justifier lolo waaw xam nga jël naa décision mm-hmm. démissionner poste bi ñu ma joxoon ci Petrosen ndax gëm-gëm la aussi mm-hmm. ñu ngi jëmoon ci élection législative te jëloon nañu décision ni du ñu jàppale candidat nguur gi nekk ci suñu département Saint-Louis dañuy jàmbal jàppale ñi nga xam ni yaakaar nañu mun nañu leen daan muy candidat Yewwi Askan Wi foofu ci daal te waroon na nag ñu tirer toutes les conséquences moo doon joxe ndombal tànk bi ñu ma joxoon bu ma ci jógee bu élection yi amee résultat yi ñun ñoo ko gisandoo defe naa ni muy nguur gi yaakaaruñu yaakaaruñu woon ni dana da danañu daanoo noonu mm-hmm. muy opposition bi yaakaaruñu woon ni danañu am ndam lu toll noonu mm-hmm. loolu nag su amee ñu xool tamit ni li ëpp ci ñi nga xam ne am nañu carte voté voté ji wuñu war na nag nga taxaw seetlu mm-hmm. taxaw la seetlu boobu nag laa nekkoon moo tax gisu leen ma ci média yi li ko jiitu sax parce que mun naa wax depuis mois de mai gisuñu ma ci média yi ba ci semaine bu mujj bi loolu mbiru xel la ak xalaat mbiru tamit koo xam ni dangay ngay xalaatal réew mi war nga soo gisee lu bees nga seet nan nga cay taxawee nan tamit ñi ànd ak yow nan lañ cay taxawee ak sooy xelal tamit sénégalaises yi ak sénégalais yi yan xalaat nga leen di jox donc loolu moo indi ci espace médiatique bi kenn gisuma ci woon teewul nag sama page Facebook ma cay bind ndax loolu moom man dama ko teg ëttu xam-xam ëttu jàng ak jàngale ëttu yar askan wi ndax su xale yi bëgg nañu tekki bëgg nañu nekk ay leader wante amuñu jumtuwaay yépp ndax ni suñu réew laloo moo ko indi ndax famille yi mënatuñu yar njaboot gi école yi surtout école élémentaire yi préscolaire bi collège ak lycée yi doonte ay ati at ñu ngi réforme defe naa ni laalaguñu réforme yi nga xam ni ñoom ñooy tax école bi nekk suñu bos ndax su fekkee école bi kenn du fa jàngale diine du sa lakk nga fay jàng wala tuuti la ñu ko tàmbali sa culture tamit kenn du ko jàngale ci école bi bon école bi dafa mel na rek école jaambur bu ñu jëlee feneen indi ko samp ko sa réew donc yarinu xale yi seen gëm seen bopp day jafe. tout donc looloo tax sama page bi ma cay wax yu bare yu mel noonu. di ci wëccoo xalaat ak xale yi di leen wax jaar-jaaru diw jaar-jaaru diw yan saa yi sax ma joxe ma nit yan na ci ay wàll sama jaar-jaar. yooyu yëpp ngir yeete kese. Mm-hmm. donc mais loolu moom dama ko doon def te dama koy continuer. tout à fait mais moo tax jamono jii nag ma jëlaat tamit. Mhm. ndax defe naa waxtaan ak sunu askan jot na. Mhm. te maa ngi lay gërëm ci li nga ma dalal. <laughs> Mhm. merci professeur mais professeur après sa annonce départ euh, bi nga xam ne def nga ko sa démission bi si euh, poste PCA bi ñu bëri euh, da nga ne convenance personnelle la. mais observateur yu bëri dañoo jàpp ne. am na ay non-dits wala sax euh, vous avez été contraint euh, de démissionner. déedéet kenn contraindre ma. amul benn kenn musuma wax démissionnel wala dara poste bi président Macky Sall. maa ngi koy gërëm di ko sant. moo ma woo le 6 mai. 2020 alal bu la woon ci suba. proposé ma post bi. ni ma poste bu am solo la. ndax ku nekk xam na société bi am na solo ci réew mi te ay at yi di ñëw wóor na ni moom mooy société bi ëpp chiffre d'affaires bu nekk ci réew mi donc mu ne ma am na kóolute ci man jox ma président conseil d'administration bu mu ko waxee ma nit am naa ci tuuti xam-xam am naa ci tamit yaakaar naa ni su ma ko joxee aussi danaa ci liggéey te danaa ci indi résultat moo tax ma nangu ko bu ma ko nangoo moom it jàppale na ma parce que euh, pour def nañu ay proposition man suñu suñu ma tegee fenn rek damay waxtaan ak ñi fa nekk ñu liñ bat xool lan la ñu mën a def ngir ñu gën a mën réussir waxtaan nañu suñu biir ci société bi kilifa yi fa nekkoon ak yëpp ñi nekk conseil d'administration bi dañu gis yoo xam ni suñu ko defee af euh, société bi dana gën a mën encore euh, répondre ci li li président bëgg li mu bëggal Sénégal ñu def loolu ñu ñu yónnee ko mu nangul ñu ko ñu tàmbali di ko di ci liggéey te ñu am ci jéego yu am solo donc euh, ci loolu dynamique boobu la ñu nekkoon wante sooy jël décision politique da ngay aussi fexe ba nga méngoo sa jëf ak sa xalaat su ma ne woon woteel leen Yewwi Askan Wi mhm. ma dëju ci poste PCA Petrosen bi danañu ma wax kat mm. yow de tu n'es pas conséquent donc man bugguma loolu moo tax balaa boobu ma delloo ci njëkk ak teraanga parce que njëkk ak teraanga la ma ko joxee ma delloo ko ko aussi ci njëkk ak teraanga loolu laa def. lan moo justifié euh, à l'époque euh, si euh, jamono yi nga xam ne mooy élection yi nga porté ce choix si Yewwi Askan Wi yu bëri dañoo jàpp ne peut-être différent yi nga xam ne am nga ko ak Mansour Faye le beau-frère du président de la République Macky Sall moo tax nga amoon ligne de conduite boobu. dëgg-dëgg yaa awma différent lan mooy sa relation ak Mansour Faye monsieur le ministre. Mm-hmm. professeur mm-hmm. sama rakk la magam la mm-hmm. je pense que dama koy wax moom it mu koy wax. mais vous n'êtes pas les meilleurs amis. defe naa ni kenn mësuñu gis ñu xuloo. dama wax li li am mësuma xuloog moom. en tout cas yëguma ko gisuma ko. wante dañu am loo xam ni gis-gis bu bokkul. ndax ñun ni ñu yoree ñoom ndar yaakaar nañu ni ñun. ndar mun nañ ko yoree lu ko gën moo taxoon ñun xalaat ni suñu joxoon mairie bi danañu def lu ëpp ñoom li ñu def ci démocratie la ñu nekk dem nañu élection candidaté nañu ci ñetti mairie foofu parce que département Saint-Louis juróomi mairie la mooy Ndar Gandon ak Paal suñu liste euh, préfet Ndar ak sous préfet raw nangu na ko par contre suñu list Gandiol ak Fass sous préfet bi de ko bañ préfet bi nangu na aussi suñu list département Saint-Louis ce qui fait au total am nañu dix mille voix xam mu ñu am dix mille voix nag tuutiwul ndax soo jëlee suñu mairie Sénégal yépp majorité mairie yi ñi ko gagné gagné wuñ ko dix mille voix donc bokk nañ ci ñi ëpp suffrage mais gagné wuñu bu ñu gisee minuit jot une heure gagné wuñu que euh, le maire sortant moo gagné lan laa def dama def message Facebook félicité ko ni euh, moom moo gagné nañu yal na am ndam ci prochain mandat parce que démocratie loolu kese la mm-hmm. donc loolu la ñu def Euh, professeur euh, comme ni ñu koy waxee en wolof for nañu si sa weeyu bëy bëy bëy que mhm. le ministre Mansour Faye moom moo président présenté kii di euh, monsieur le président Macky est-ce vrai ou faux déedéet présenté wu ma Macky Sall dama lay wax nag mhm. xam nga Macky Sall kañ laa naa ko bu mu nekkee étudiant bul fàtte mukk j'ai enseigné mhm. de 82 à 90 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar gisoon naa ko mu nekk étudiant deuxième chose xam nga Macky Sall kañ laa ko gis décembre 2006 dafa convoqué woon tous les responsables du PDS de Saint-Louis à l'hôtel King Fahd parce que responsable Saint-Louis dañu mus a euh, bañ di déggoo même jamono PDS c'était la même chose mm-hmm. bu mu ñu convoqué foofu jam si yàlla Ousmane Masseck njaay moo doon le maire de Saint-Louis <laughs> bu ñu paree réunion bi ci waxtaan bi